sa miray ba la soxna si li nga miray. ma ne la nga miray. nga bañ si yaa may réunion yaa sob nga nga. dama lay ba nga dëgg. yaa réew. soxna si xolal yaa ma gën a réew. yàlla mi ngi doon taw si bu ndajee tuus dara naada waaw may ma baax maa lay charré naka yitte yi woy am nga nena nan ba nan baxal ah mais nanu gaynde la bëggoon de am na nanu gaynde buñ baxal amoo boobu laaj na am na nen ours luy ours ourson non bàyyi man li ma la si ma si jig bu ko la si de nar laa la wax